Papi Mane Cheikhouna Ndiaye Bounama Silla ñoomunu kale bonul di karasa kumbam kaloben këriŋe nilobenul di karasa kati ekefey yanem mi Mouvement pour la défense de la démocratie ekefey yekila yecim kawankaku kati funaka fatijat ñoomine saaful di duwowul emitey esontenul emitey epoyul digi simaya sampawam siñayam kutiyom dikulinom dimamañ manteñemi eno dimuyul bare fani manjenul fane mati ninje fange manteñe mati bukanolulal kalomi tentam malejen kulolo mati mufa molulal mati senegal bare kulolo fana matinje koke dat manku fintoye dikayinen hama yolulal mambi senegal daw facul man ula lubaja kasumay anosan lakomo dat dingolene ilobul tutoram demitey sinila solil lesilo momu 15 yo fang yo e ɓenen ɓenen fujuma fololi man mbi sawa yolulal e jum bandor mbiwla burom obadia ka sumay deredi mo fa mololal mati sénégal mo kam mi ulowal wula burom emi mbi mo fa mati dakar mati ndofan mati diawɓe mati belay mati medina sabah di mati tate biñona murent di sinila solil emit nebenketil man awalanil aljana firdaus allahuma agfir lahum warhamhum wa wassi mudxalahum wa sabbit aqdaamahum mbokk yi ci gàttal tey ñoo ngi fii ci dëkk bii di Bignona lañu fi andi mooy woote m ngiree ñu ñaanal suñu way dawlu yi nga xam ne dañ leen boom ci li xewon fi ci mois de mars suñu xol fess na lool motax ñewuñu tay ngir politique ñi wax wa biñona di wax wa senegal ni ci fan yi ñi jëgmal di ngeen ñu gis ñu ñew and ak yeen ngir wër Senegal yépp ci lo xamné tourner politique lay doon waye ñu dellu si ci li fi xew gannaaw bu ñu nuyee kilifa yépp jiital ci suñu sëriñ suñu turandoo suñu papa nga xam ne mooy Ousmane Mfangsu Bodian imam ratibu Bignona ñu ngi sant ñi fi teew ñépp di gërëm it waa Bignona ak zone bu ñu munti jógee di leen gërëm ci tertu gi ñu teeru ñun ak ñi ñu àndal ñuy nuyu it lépp loo xam ne kilifa aadala ak kilifa diine rawatina nag suñu yaay yi nga xam ne ñoo féete lépp lu jëm ci bois sacré bi nga xam ne Sénégal yépp gisoon nañ seen taxawaay ci li fi xew bu loolu weesoo ñuy jaale mbokki ñi fi daanu ñépp lim nañ leen limaat leen aajowul ñu limaat leen di leen wax ni ñoo ngi leen ni jaale seeni mbokk waaye it mënuñoo fàtte ñi nga xam ne amoon nañ ci gaañu gaañu ñii seen bakkan euh, ñii pert nañ ci seen bët ñii ñàkk nañ ci ab tànk defe naa Bignona moo ëpp li mu am ci ay gaañu gaañu ñooñu ak ñi ñu jàppoon ci kaso bi te bàyyi leen waaye ñi ñu jàpp ci kaso bi te bàyyeeguñu leen te ñu ràññee ci ñeent fii ci kasamaas ak ñeent fële ci Diourbel ñu leen di wax ni duñ leen mus a fàtte te m dina def li mu war li ko war pour ñu xeex ba ñu génne leen foofu ngeen nekk xam naa nag mbokk yi yéen ñëpp ni ngeen dundee mbir mi métti woon na torop ci yéen waaye ñu leen di firndeel nit ci ñun ñii la gën a métti ndax ñii daanu ay xale yu ndaw lañu ñoom ñëpp dañoo jiital bëgg seen réew moo tax ñu daanu waaye umpulewu ma ni cofeel gi ñu amoon ci ñun am ko ci suñu programme ak suñu projet politique bokk na li ci tax li tax ñu daanu kon nu ngeen ci am métit métit ñu leen di wax ñun ñii jàkkaarloog yéen donte xam nañ ni lu mel nii dafa ànd ak sacrifice waaye noonu lañ ci amee métit kon ci gàttal ñu ngi woo ñi fi teew ñépp ak ñi fi nekkul ñun ñëpp nañu daje ndax tey bésu julli la bésu ñaanal la nañu daje ñaanal ñi fi jóge nañu ñaan yàlla yërëm leen te jéggal leen doonte am nañu yaakaar ne fi mu ne nii ñu ngi tëdd ci aljana ñu ngi ñaan yàlla may ñu ñun ñëpp xolu muñ jiital ci seeni wayjur di ñaan yàlla liy géej fi di wax tamit ni tey bés bu special la waaye ci fan yii di ñëw dingeen gis ni mdd la ma waroon def ci mbir mi dina ko continuer def ba ñu leeral mbir mi waaye ñu bàyyi ñi nga xam ne jàppoon nañ leen maa ngi jégal ci guddal gi xam naa ni euh, Cheikh Tidiane dina ma xaw a mere waaye nag war nañ ma mën a may benn exception bu ndaw su ma ñëwee ba fii ci Bignona ma mën a dériver message te wax sénégalais yépp ni nag lii moo ne woon solo si lii moo taxoon ñu jóg waaye ci fan yi di ñëw leneen loo xam ne bokkut ak lii dinañ ci taxaw ni ci war a taxawee ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf honorable député Ousmane Sonko ñu àggali programme bi ñu muñ tuuti rekk ndax li ci des bareetul ñaari kàddu yi nga xam ni honorable docteur Cheikh Tidiane Dieye dina ko jël ci kàllaama tubaab beneen bi di honorable député Aïssatou Mbodj dina ko jël ci wolof te mooy déclaration bi nga xam ni moom lañuy liir ci jotaay bi ñu teewlu ko bu ñu paree ñu sànnente ñaan yeewi jotaay bi incha allah. asalaamualeykum. Nous voici rassemblés ici à Bignona, sur cette terre de Casamance, belle et verte région de notre beau et grand pays, le Sénégal, pour célébrer ensemble le souvenir de nos martyrs. Prions avec les mères, pères, frères et sœurs éplorés, avec les veuves esselées, avec les filles et fils devenus orphelins pour que repose l'âme de ces jeunes frères tombés à Bignona, à Dakar, à Diaoubé, à Ndofan et à Medina Sabah. Nous exprimons notre soutien aux jeunes encore dans les prisons et demandons leur libération immédiate. Nous affirmons notre solidarité agissante avec les familles des proches des victimes. De cette crise que notre pays a traversée, nous tirons les enseignements qui doivent nous mener à des décisions fortes, consensuelles, crédibles et qui soient refondatrices. Et cela se repose sur deux impératifs. Premièrement, nous devons agir à l'instauration d'une république moderne, fondée sur le droit, dotée d'institutions fortes et crédibles, et qui place le citoyen au cœur de l'action publique. Nous devons aussi, en deuxième lieu, œuvrer à la préservation et à la sauvegarde quasi quotidienne de nos acquis démocratiques et sociaux qui sont encore précaires et vulnérables. D'ici, de Bignora, aujourd'hui, nous lançons un appel à toute la classe politique ainsi qu'à tous les leaders d'opinion aux mouvements citoyens et à la société civile pour sceller un pacte, le pacte de Bignona, par lequel nous nous engageons, premièrement, à agir individuellement et collectivement pour l'unité nationale, la paix et la concorde dans l'espace politique. Deuxièmement, à bannir de nos discours, nos comportements et nos actions tout ce qui peut susciter entretenir et encourager la haine et la division sur des bases religieuses, ethniques ou communautaires. Troisièmement, nous écarter publiquement de toute personne ou tout groupe de personnes qui, du pouvoir ou de l'opposition, ou même de la société civile, par l'acte ou la parole, susciterait ou encouragerait la violence et la haine dans l'espace public. Quatrième engagement, nous nous engageons à promouvoir et à encourager une pratique, politique positive fondée sur le respect de l'autre et la valorisation des débats d'idées. Cinquième engagement, nous nous engageons à préserver la démocratie, la justice et l'état de droit, valeurs pour lesquelles ces jeunes martyrs sont tombés. Sixième engagement, nous nous engageons à nous offrir un exemple à la jeunesse sénégalaise et contribuer à son réarmement moral pour que cette jeunesse prenne conscience de l'étendue de ses possibilités et qu'elle s'insère en tant qu'acteur de premier plan dans les espaces politiques, économiques et de production de nos richesses. Enfin, nous nous engageons ensemble, acteurs politiques, mouvements citoyens, acteurs de la société civile et citoyens sénégalais tout court, à ne ménager aucun effort pour le retour d'une paix définitive et durable en Casamance une région du Sénégal qui nous est si chère. C'est l'acte que nous lançons aujourd'hui, c'est le pacte que nous scellons d'ici à Bignona. Et je vous remercie pour votre aimable attention et voudrais maintenant passer la parole à l'honorable député euh, Aïssa Toumboj pour traduire cet acte en Wolof. rahim Rabbil alamin Mbok Bignona Mbok Casamance Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp man Aïda Mbodj dey bu ñu fi nekkee rek jàpp naa ni Sénégal la 1974 bi may sëy si fii ci Ziguinchor le 9 juin benn journal bu ñuy wax Amina dafa bindoon fille du nord ndax waalo waalo la femme du sud ndax ñëw naa sëy si sud loolu nag mooy Sénégal loolu mooy àndandoo ñu ñëw tey nag ànd ak yéen di massawu sunu jàmbaar yi daanu di massawu seen waajur di leen jaale ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ak ñi ñu àndandool ñëw di leen naw ci seen gëm yàlla di leen naw ci wóolu yàlla di leen naw ci xale yi li nga xam ne moom lañ doon xeex mooy li nga xam ni mooy yàgg nekk ci réew mi te metti leen te ñu jàppoon ni waroon nañoo génn ci seen réew metitlu ko naqar lu ko muy dëgëral kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi taxawal kuréel yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi te ñi fi wax wax nañ ko fexe ba suñu justice su réew kenn dootu ko utiliser contre kenn kenn dootu ko moom kenn dootu ko dara jawoo loolu lañ xale yi doon yaakaar ni suñu génnee loolu mën naa dañ xale yi yaakaar ni xeex yi nga xam ni seeni taaw ak seeni mag xeexoon nañ ko seeni maam loolu warul a naax saay te waroon nañ cee taxaw xale yooyu nag. comme niñ ko waxee fii duñ ñu gën a gore duñ ñu gën a gore parce que ñun ay gor lañu duñ ñu gën a gore te loolu moo indi sunu ànd bi gis nga seen doom ji moom la ñëpp di wër ñun ñëpp kenn ku ci dekk man assemblée laa xamante ak moom damaa def sama parti dem assemblée mu def partem dem assemblée waaye nag li gën a ëpp xam-xam mooy koo xam ni bu guddee mu ni leen fii la ker gi yam bu naaj wi ne dàng kem gi yam foofu gis nga keroog bañ ne dañ koy jëli laa dem ca moom ni ko gëw ma liñ la wax d'accord ma ci liñ la wax xam naa fi nga jóge xam naa fiñ la yare xam naa éducation bi nga subir liñ la wax defoo ko comploteur bi jógate na kon duñu nangu complot bi jàll loolu lañu ñu bañ loolu la xale yi bañ ba tey ñu daanu kon nag daanu nañ sur le champ de kon ñu ngi leen di sargal kon du ñu gën a gore looloo tax fii ci Bignona pacte bii Cheikh Tidiane Dièye wax ñun dañoo japp ne ab ribo la bu dind suñu deret ya jaadu won dinañ dind suñu deret takal ko ci garab gi jam suñu bop ci garab gi pour wane ni kenn du war ci li nga xamni mom lañu d'accord liñu d'accord nak modi kenn ku nek wala ñu andando ak nu mu démé di nga fexé ba réew mi nek benn ba réew mi bok xol ba réew mi andando ñu dëgeural dëgg dëgeural jam di waxante lu baax dindi lepp luy en démb lepp luy xaar ma yàlla ci suñu digënté ñaarël ba te engagement la buñu jël moy lepp lo xamné ci cadeau day yàq digënté diko ko ñu tek ko ci diiné wala di ko tek ko ci ki fi la dëkk fee la dëkk ki bokkul ak diw loola dinañ ko dindi dinañ ko dàq te ñun ñi politique ñun la ñëpp di xol kon ñun ño wara sam loolu ba moy képp ko xamni jogna pour xàjjale nit ñi ci kaw diine wala muy xàjjale nit ñi ci botte konte xeet wala muy xàjjale nit ñi parce que kii fii la dëkk kii dëkkul fii kooka dinañ ko bàyyi dinañ ko xàjj ci suñu ànd te dinañ ko weer ba ñépp xam ne li yàq ki a koy yàq ñeenteel ba mooy li nga xam ne moom la ñuy politique dañ koy soppi de sukkandiku ko ci li nga xam ne mooy nawlonte bu ñu nawlontee dinañ valoriser li nga xam ne mooy suñuy jikko moom lañ ñu bataleel su boobaa ku d'accord